جل جلاله إني فقير ومسكين ومنكسر محتاج غيرك في تيسير أو أجمالك يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحمن jalla jalaal anta waliya fi dunya wa baratiha tawaffani musliman fi raqi amra bokk ni bàyyi xel ca Tumawdo TV macha allah comme niñ leen ko diggee woon macha allah ne leen incha allah lépp loo xam ne activité gàmm gi la moo xam marché yi moo xam ñi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci gox yu fasantikoo yi maanaam ci ñeenti xibla yi nga xam ne ñoo wër Tiwaawoon macha allahu ñëw fii ci Tiwaawoon ngir ñëw fii ngir ziar ngir ziar si Serigne Babacar Sy rawatina màggal guddi gi nga xam ne mooy guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam seen télévision mag bi leen nga xam ne mooy ëttu Maodo TV ni mu leen ko woon dinañ leen demal ci marché yi macha allahu dinañ leen demal euh, macha allah ci euh, mausolée yi macha allah dinañ leen won lépp loo xam ne commerçant yi aussi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci gox yu fasantikoo yëpp ñëw fii ci Tiwaawoon macha allah ngir magga ci guddi yonent bi alayhi salatu wassalam sen télévision mag bi la nga xamne moy mooy modou TV insha allah dina len ko topal dina len demal fep fep fep ci ruq khat yek yep insha allah dina len ko topal duggal len fa ci ay reportage ma sha allah ci ay interview ci lépp lo xamne dal dafa jëm ci actualité ndaysan concerne moy li nga xamne moy mooy gàmmu Tiwaawoon insha allah dina len ko topal ci sen télévision mag bi la nga xamne moy mooy modou tv ma sha allah kon nag wéy leen di ñu topp ci ëttu Maodo TV macha allah ñu jaajëfal nag suñu bokk téléspectateurs yi nga xam ne macha allah dañoo sof safoo ëttu TV di ko topp ci ay programme am ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal yàlla bu baax a baax a baax macha allah kon nag mu ngi noonu comme niñ leen ko waxee encore une fois dinañ leen toppal lépp lépp loo xam ne jëm na ci gàmm gi tey mooy bésu noppalu bi macha allah noppalu bi nag suñ ko waxaan du bésu noppalu ndax am na masale yoo xam ne su lëntaan mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi ci jour bi lañ daan ñëw di màggal di leen ko jàngal araf par araf di leen toja di leen yokk xam-xam macha allah loolu moo waraloon bésu noppalu bi fa aju jëm ci gàmmu Tiwaawoon incha allah seen télévision mag bi la nga xam ne mooy ëtt Maodo TV comme ni koy defee ci programme yi nga xam ne moo soxal xadara bi incha allah dina leen ko toppal ci biir ak ci biti ba ca njëlbët ba ca cérémonie ba lépp lépp dina leen ko toppal incha allahu taala kon nag wéy leen di suivre ëtt Maodo TV may wey Cheikhu Omar alfuuti yu taal mooy borom dégg mbiri alhamdulillahi may wey Cheikhu Omar alfuuti yu taal waaw ñu ngi lay fay bu baax. pour rek sant bi. Cheikh Diop laa tudd Cheikh Diop. maa ngi bàyyi ko Touba Tawféex. Touba Tawféex waaw Touba waaw. Touba Tawféex ma ñëw si gàmm. waaw waaw waaw mi ngi tane waaw nang nang rek mi ngi tane. waaw mais neex na lool na wax dëgg yàlla. ñun moom dañoo ñëw pour jaay si. ñëw pour gàmmo waale si. ndax lépp benn la. waaw gàmmo gi neex na. te itam moom macha allah moom xëy na commencement bi la nii waaye moom Tivaouane dañuy jënd quoi waaw dañuy jënd moom incha allah. dañuy jënd maanaam amagul benn affiliation bi amagu ko nag moom. ndax gàmm gi commencé gul daal. waaw benn benn la ñuy ñëw fi ne actuellement nii quoi waaw waaw. waaw non gàmmu day neex moom fi moom wax dëgg yàlla macha allah day neex moom si kër si day neex maanaam euh, jàng yi day neex. léppay neex daal moom macha allah. ak nawet a yomb. Ah, xam nga rek. àdduna moog looloo an daal. waaw parce que ci jamonoy nawet lan nekk. mais nag dara dañuy kii rek def suñu toile ak yooyu. waaw sàkkatu noonu rek. yàlla mën naa dogal te xëy na du fi taw si diggante bi quoi yàlla mën naa dogal loolu. incha allah. waaw waaw waa jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax nag. parce que yéen tamit ñu baax ngeen vraiment sa li mënon na leen ci baña a wa mais ñu ngi leen di sant bu baax wa da leen publicité waale njaay meeg yoy rek wa affaire yi mom waaw fi moom boo jaayutu day neex te an moom boo jaayutu ma gamu gi day neex wa fi mom lepp xewal la di la de nuyoo bu baax a baax tur beeg sant bi Ngagne Diop laa tudd Ngagne Diop baye fa ko baye ko Dakar Kër Massar Kër sa nga fi ndey ndeysaan ngir walu commerce fi ci gamu gi ndax affaire yi mu ngi dox waaw sha allah bo xolé ma fi ñew barki demb installé demb mais ma sha allah nit ñi gis nañ ni au fur et à mesure ñi ngi ñew nang nang quoi ñi ngi dox nang nang té am nañ yaakaar ni dina gëna dox incha allah waaw. sax mais amagul ben affiliation bi daal mbooloo mi guñ bu baax. wa mbolo bi comme ni mu wara ñewé deug deug deug dess na mais ñi ngi leen sentu bi si ngoon comme gamu gi suba la mom xamna ñi ngi leen séntu fii ngoon ba guddi ba japp suba samit ci fajar gi incha allah. tubéy tubéy tubéy benn ñaata la. waaw tubéy yi sans si tubéy yi quoi parce que day varier selon qualité tubéy bi. am na fi yu 4000 am na yu 5000 am na yu 3000 bu dee t-shirt yi tamit am na yu 6000 am na yu 4000 boo xoolee tamit boo yokkee sa prix tamit daanaka mun na la sonal parce que dëkk bi ku ne xam na fu mu toll. client yi dinañ ñëw dinañ bëgg mais seen doole moo dul demee noonu moo tax yow bu fekkee da ngaa rek mën na la xaw a sa liggéey tuuti ko da ngay jéem a fexe rek noo dóoree rek daw génn dem xool leneen ñu ngi lay wax bon gàmm oui bon gàmm à vous aussi ok commerçant sëñ bi maa ngi lay nuyu waaw mais yéen lay fay Aliou Thiam Aliou Thiam Aliou Thiam bàyyi woo ba Touba Touba Mbacke waaw. waaw ah, benn la de moom. xaw na xëcc na yoon métti na trop moom métti na trop waaw mais sant yàlla. waaw dañoo ñëw fii pour daan doole nag waaw dañoo ñëw pour daan doole. mais nag affaire bi dèjà xaw na métti pour l'instant moom. l'instant métti na alkaati yi ak ñun ñun ak ñoom ay mbokk lañ nag mais nag. koo télé bi du yomb quoi du yomb ndax la problème citoyen ay citoyen kese lañ. xam nga mais nag comme ça ñun ñun ñëpp ay masse ambulante rek. ñun sa yoon ñi nga xam te ñoo suñ njiit mu jàppale ñu quoi wàññul daal quoi wàññul daal comme tuxuñ sàccuñ waaw nangu neen liggéey ay ndaw lañ nañ ñu jàppale te yàlla rek tax dañ koy ñaan nag loolu du force ndax kaw tëli moom pour oto la n'est-ce pas mais xam nga comme ça comme ñun ñi citoyen yi ak euh, jeunes yi ñoo ko matewul ñoom ñooy comprendre quoi comme ça dañuy bokkaale comme ça comme tratuwaale yooyu noonu mënut a ñàkk ndax ñi fi ne ñëpp bëgg nañ liggéey te amuñ liggéey usine amu fii mooy loolu et cetera mais comme nañu jàppale quoi nangu ñoo liggéey de yàlla xam ne ku ñu jàpp ñu dem boo gisee nit ñi nekk di dugg si gaal gi yu yëpp les quoi dana dem ba am dana dem ba am mujj souffrir. ma la déggee alkaati dañ leen a sonal quoi ci wàllu ci wàllu njaay. lay sànni yi moom dañu leen sonal quoi. man maa nii sama ma la. est-ce que nekkul tamit yéen a nekkul ci yoon. dèjà ñun ma nangul première fois. kaw tali yi ay jeunes bëgg nañ liggéey. matewuñ dañuy comprendre rek comme ça lii xam ay programme yi nga xam ne ñetti fan la ñaari fan ñetti fan yooyu yàggul ñu mooy ni moom jëfewul comme kilifa yi ñëw na moom ba génn léegi li si des moom maa ngi nii bëgg ko lal sax mais mun ma ko lal quoi mais nag ab sant yàlla comme nañu xëy moom di mën a xëy rek sant yàlla la mais nañu jàppale bu baax a baax nañu jàppale bu baax a baax dañ koy ñaan dañ koy ñaan du force nag dañ koy ñaan. ndax client yi ñu ngi ñëw. waaye client yi dafa ne si loxo yàlla rek xam nga da ngay wakkilu yàlla buur rek waaw yàlla moom boobaa mooy moo lay fekk si boppam waaw ndax moom moo ñu ko wax inna laa maa saabiriin lañu wax waaw maa ngi ànd muñ kat ay kon nañ ànd muñ rek waaw xëy na ñu gis ko te fii baabu sell la nañu bàyyi ñu liggéey bëri nañ liggéey de. waaw Ndiaye man man Ndiaye man de. waxagul de ah client yi daal. man am naa fi quatre jours. non ñu ñëw ndànk-ndànk dañ doon installé depuis lool. lépp lu xale soxla rek. dañu ko jaay kay. waaw mètre dix mille fee ne vingt mille la. ah moo ma jaaxal gars yi dañuy jaay léegi de. lal bi dafa amoon jafe-jafe ak ak kii policier yi moo tax sax lal bi yéex parce que fii dañ ko doon tere pour gars yi jaay. waaw. yi waaw ñu ngi ñëw daal visite laajte prix genre. ah xanaa ñu ñëw jënd rek waaw loolu c'est ok merci marché ah, Tivaouane macha allah ñu ñëw nag seet si ñi nga xam ne ñooy jaaykatu téléphone yi en même temps di ko réparer incha allah ñu ñëw rek nekk suñu benn waay ñu laaj ko tur ak sant bi incha allah sëñ bi maa ngi lay nuyu. Eh, ñoo ngi leen di ziar di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay ci tur wi Cheikh Diop la ñu gën koo xam Cheikh Ndar alliance bi Cheikh Ndar Cheikh Tidiane Diop en plus.

en même temps gis nga boo xoolee vitrine bi dañ ci def suñu affiche yëpp jox suñu numéro tout ça bon loolu daal moo ñu indi ci gàmm gi loolu mooy suñu professionnel yi ok voilà waaw. macha allah ngeen ñëw ci gàmm gi maanaam liggéey bi est que dina am différence par rapport ak gàmm gi maanaam est a am client dina gën waa si xam nga dafa am ñett yoo xamante ne fii en Afrique rawatina Sénégal ah, lu mënul ñàkk la événement yi mel na màggal day mel na gàmm. ak yeneen yu mel na tabak seeg yooyu njaay mi day différencé parce que dañuy am client yoo xam dañuy jóge fu sore am na dëkk dëkkaan yi xaw a sore yi ñoom dañuy am problème yu mel nii am téléphone yenn qualité yi léegi yow boo déplacé wu sa dëkk ñëw fii ak ay accessoire comme sama torondoo bi moom it comme dab da nga leen koy andil defal leen ko moins chair njaay moom day gën a gaaw par rapport nga nekk sa dëkk loolu moo gën a yaatu ko nga nekk foofu mais foofu aussi fi ñu nekk dañ fay fortaatu mais li luñu yagay def luñu baxantal la wax deug yalla ay ad yu bari ñoo ngi fi wax deug yalla duñu am problème nak mom sincèrement parce que lu logique rek lañuy def tey ji boo calculé dañuy jënd téléphone yu bëss ci magasin bi ñëw def ko fi suñu place di jaay en plus bu fekké dafa mo xol dafa bëgg changer téléphone mu am problème en cas dañ ko koy changer comme réparation en même temps mais di daal daanaka baxantal ko chaque année ñu def kon ñu ngi ci gis suñu ah maquette man dafa am ak businessman day xaw a nuroo mais tey dinaa leen ko différencier pour téléspectateurs yi seetaan dafa am ñoo xamante ni danoo initié wu ci lii dañ cee nekk uniquement ñooñu ay business man lañu partout dans le monde dafa am businessman milieu bii nag milieu business la milieu business jógalante ak jënd ak jaay foo ko gis day am léegi mun te ñàkk erreur comme ni ko gars wax naan kuy gàmm ak kuy raas dem duñu bokk léegi ñi nga xamante ni on ci métier bi xam na ni ñun amuñu fit googu par exemple ma tey ji ma expliqué la aw ma fitu man jël lu bon di ko jaay nit mu dellu sama kaw tey ji par exemple bu fu fekkee tey beneen client day yàq sama njaay wala kooku du mën a ñëwaat il faut ma satisfaire client bi boobu benn côté la encadre ko comme kii li mu wax daan ni dóor maan ñun mënuñoo seq ak dóor maan dara parce que ñett moo tax ma yaatal ko bis naka tey ngeen comprendre dañu yor ay soutien de famille yor ay njaboot bi ci jiitu il faut ñu jéem a sell li ñu yor pour mën cee jëriñoo ba pare mooy tax lii machine la lii liggéey soo ko sellalee dina la jëriñ soo ko tegee ci yoon dana baax troisième abcès bi moom mooy am na loo boo ci yàggee dara du la jaral yenn yi da ngay liggéey te yàlla rek tax tey def lu jub gis nga koo fekk ci bërëbam mu nangu faa yàgg taxaw fa xëy na am na logique bu muy demee comprendre nga loolu moo tax ñun ay businessman lañu bon en plus man lañ mais mënta ñàkk ñu rax suñu biir comme début bi li ma la wax loolu mënta ñàkk mais responsable boo mu gis comme nii ñu fees dellu toog dañuy jóge fu sori ñëw di liggéey loolu métier la waaw métier la message bi moom mooy ñoo ngi sant di gërëm Thiès TV ñun ay doomu Thiès la di kontaan parce que initiative bi baax na di wër xool soxlay gaay ak toogaay bi ak ëllëg nu muy demee loolu lépp day baax ci yaatal ba tey Thiès TV moom dama ci kontaan parce que damay toog cees di ko seetaan an teg sama doom ndey yi xam ni ñoom ñoo ngi liggéey te liggéey bi mi ngi mi ngi yaatu tey jii li ëpp solo nag message bi may lancé na doomi Thiès di seetaan Thiès TV non dama ni ak ëttu Maodo d'autant plus nañ koy seetaan parce que dafa am loo xamante tey ji message yi ji génn am na njëriñ ci biir même bu amul njëriñ visibilité boobu dafa doomi Thiès dañ ko war a di xool man dama koy seetaan parce que xam naa njëriñu télé bi te ñi ciy liggéey ñun ñoo leen di mën a jëriñ kon donc yàlla nañu yàlla taxaw ci barke yoru gàmm gi taxawul mbooloo yu jullit ñoo ngi leen di sant leen gërëm lii baax na bu ñu mënee jàll ci gars yi y avait des responsables yu ne ci biir mu gën a yaatu waaleykum salaam alamba xanaa sandis rek jol makka moyane jol futa man yàgg naa ñëw Tiwaawan moom di jaay waaye tawfiix rek ak ndam waaw ci barki borom waaw dëgg depuis mardi ba léegi ngi ah sant yàlla bu baax parce que ñun dañ daan ñëw fii ñu ñuy dàq di ñu sonal daal mais ren moom wax dëgg allah ñu ngi jaay kenn solo non place yi moom jaay ñu moom dëgg yàlla policier yi daal def nañ seen liggéey moom wax dëgg yàlla yor nañ kaaraange ñu ngi ñuy aar bu baax a baax a baax sonaluñ ñu sàcc yi sonaluñ ñu ñoom ñu ngi ñuy dimbali wax dëgg yàlla moom waaw ren moom ute naa yi daan am moom waaw léeg-léeg mu am jafe-jafe parce que léeg nga jaay nit mu xeeb ko mu ne li ma jaay dafa ndaw wala yooy waaye nag affaire yëpp a seer fu a seer soble kilo 800 nen bii 3000 et quelque lay jar dafa seer daal ah xanaa ñu góorgóorlu comme ñun ñun daal dañoo tàmm daal jaay moom xëy na sax mën nañ ñu gis suñu bopp mën nañ ñu bañ a gis ñu bopp mais ñun ñun ñoo tàmm daal rythme ambiance Tiwaawan ñun ñoo ko tàmm waaw mi ngi neex sant yàlla bu baax di leen ñaanal yéen tamit ngeen gën a yokk ba yëg ñu teewe ak ay déwén yu baree baree bari sant yàlla bu wér a wér جل جلاله إني فقير ومسكين ومنكسر محتاج غيرك في تيسير أو أجمالك يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحمن يا ألطف اللطفاء يا بردا جل جلال أنت ولي في الدنيا وضرتها توفني مسلما في رقي أبرا